ji eggul ci un point de non retour dans la mesure où euh, kaddu yi mi ngi ñagasan parce que a toujours écouté le responsable de la communication de Pastef muy El am na lu mu wax nee euh, ku ci mel ne seen euh, responsable Ousmane Sonko il ne doit rien à ce pays maanaam musul liggéey ba ñu épingler ko sur quoi que ce soit def na impôt 15 ans état de service am yi macha allah bi mu waxee loolu mhm. on sentait derrière son sourire que am na ñu muy xaw a désigner mm. en parlant peut-être de de vous waa taxawu Khalifa depuis les quatre-vingt da nekk ci nguur kenn mësu ko épingler ci audit na bàyyi ba Ousmane Sonko jaar fi Khalifa jaar ba responsabilité li mu yore jóg leen comparer sont incomparables tolloowuñ sax xalifa fi mu jaar yépp kenn mësu ko épingler ci audit laal wax Mhm. te tey bu ñu duñu bu ñu déclassifié woon rapport de l'IGE ñu xam ne li ngeen xam ne Khalifa kenn épinglé wu la ko mais politique la. Mhm. comme niñ tegee politique si kaw président Ousmane Sonko même chose la. kee fonctionnaire la woon. Mhm. doon liggéey bokk rek des fonctions politiques na bàyyi ba jaar Khalifa jaar audit ñëw audité ko. mais tey jii nii boo seetloo monsieur le maire tout ce qui arrive euh, des propos yu xaw a ñagas de part et d'autre. seen camp ñëpp defuñu ko ah ki may gën a désigné rek mooy Barthélémy Dias hostilité euh, yi moom daanaka bi mu defee conférence de presse am bi ci la ci la commencé après la sortie peut de Ousmane Sonko euh, yooyu noonu yëpp tey jii nii ci ñoo xam ne dans un passé encore très récent ils étaient inséparables est-ce que du wane aussi hypocrisie nga baal ma ci wax ji homme politique yi déedéet Ousmane Sonko moo ne président Ousmane Sonko du moins ngeen baal ma moo ne am na leader opposition mhm. biir Yewwi bu dem gis Macky Sall. di waxtaan ak moom. te moom nee woon na moom peut-être Ousmane Sonko ne Barthélémy Dias du leaderu taxaw Sénégal. du leaderu Yewwi. Mhm. waxoon nag ko. waaw doo ko waxoon. donc su fekkee dafa ne am na leader bu génn dem seeti Macky Sall ak ban contexte la ko waxee. mais est-ce qu'il parlait. de vous attends attends attends ba fu mu ko waxee. ban contexte boo xool réseaux sociaux yi. bi ñu ko waxee rek ñu bëri ñu ngi doon saaga Khalifa Sall il faut vérifier. baat li mu def loolu la góor di def. bu àndeeg nit rétablir la vérité. bu àndeeg nit ñu bëgg a yàq deram bëgg a ay nit bëgg ko tuumaal da ngay taxaw wax dëgg. mais pourquoi moment boobu noonu. waaw et pas avant. parce que moment boobu noonu xëy na am na ci lu ngeen jàppoon. déedéet moo tax avant wax ko daa wax ak ñaari kilifa. muy xalifa président Khalifa ak président Ousmane warul génne si gémmiñam ci mbedd bi mhm. loolu mooy responsabilité mooy homme d'état du loo xam wax ko ci mbedd bi. d'accord mais li ma bëgg wax mooy euh, li ngeen muñ avant te moment boobu noonu après mënut leen ko woon wuñ woon a muñ. qu'est-ce qui l'explique. non foofu bu ko muñoon noppi mais Khalifa danañ dañ dañ yaakaar ne moo dem dil ak Macky mais ñoom nag ce qu'ils disent mooy moment boobu fekkee na commencé ngeen waxtaan ak Macky Sall am ci lu wóor lu wóor wane ne di ngeen ñëwaat ci jeu politique bi. su fekkoon ne président Ousmane Sonko waxul loolu baat du gën wax un deuxième sorte deuxième sorte waxtaan amoon na déjà. waaw moo tax baat gën wax baat loolu mooy yëfu gor munul munul nekk moom ba pare ñu koy jiiñ keneen mu toog këram di noppi. kon yow xanaa doon nangu. ñu naan Barth calendrier am la yor boppam lay liggéeyal jamono ji. non xalifa euh, maq suuf moom mu positionné wu en 2029. balaa nga naan naam parce que ses alliés actuellement yéen a ngi wét de plus en plus on vous a exclu de Yewwi euh, bokk leen pouvoir bokk leen opposition est-ce que li ngeen yor rek doy na pour ngeen gagner. en 2024 nous sommes des opposants on a fait ans d'opposition 23 ans d'opposition dugguñu benn gouvernement. Mhm, c'est vrai. dugguñu benn gouvernement bu ñu bëggoon dil ak Macky Sall tey Khalifa nekk premier ministre Khalifa tëdd kaso. du ko dugal kaso. bu ngeen bëggoon directement saa xafee tamit ma ne premier ministre. ba pare dugg kaso. non kaso bi moom xam nañ ko. mais lu mu bëggoon da koy nekk. dañu leen a promettre ay ay mbir. lu xalifa bëggoon nekk ko laa moom xamul dil xamul nit xam na waxtaan mais du dil ñu fekk la kaso. si loola pour ñu pour ñu génne la am ni. Euh, grâce bi grâce bi il a refusé. ne avocat bu leen signé benn grâce. Mhm. kan moo signé grâce bi de force kan moo signé grâce bi. avocat keneen la président Macky jël mu signé grâce bi kooku du dealer kaso da ko tëdd dignement 32 mois de prison tëju ko dignement kenn mosu mosulaa dégg mosoo dem pavillon spécial mosoo dem fenn ak sa ngor nga tëdd ko ba mu jeex tàkk ba ñu génnee la. mais Barth il a un calendrier. non am na am na lu wax nee na dans l'affaire